société nationale d'électricité bu Sénégal Sénélec moo leen di seen revue de presse dali na jàmm ñu ànd xëy yër yéen a ñu xëyandoo yéen a kaay gi di réew mi quotidien xëy duñu xibaar naan ñu ginnaaw élection locale yi la njiitu réew di président Macky Sall waroon amal li nga xam ne mooy ab remaniement waaye nag daf ko mujjee dàq li tax mu dàq ko mooy coupe d'Afrique bi nga xam ne sunu gaynde yi andi nañu ko ci réew ndax moom Macky xew wii nga xam ne moo am ci réew mi bëggul lenn lu moo yoo xam ne mën bopp ndax am na ñoo xam ne munta ñàkk ñu dagg seen bopp yi yéenekaay gi xëy dañu xibaar naan ñu Kalidou Koulibaly mi nga xam ne moom la ñu sàccoon ab téléphone am ca pale ba téléphone boobee nag gis nañu ko ñi nga xam ne ñooy waa section de recherche ñoom ñoo ko gis yéenekaay gi de Libération nee na bi nag maanaam aan la ñu ko njëkk a localisé mu jógee aan ñëw fi nga xam ne mooy marché Colobane foofee la gars yi tegee loxo téléphone bi yéenekaay gi ne moo sàcc téléphone bi moo ñëwoon doon ko jaay benn boroomu cantine gars yi bi ñu ñëwee daal di waa ji rëccee waaye boroom cantine bi teg ko loxo déglu nañu ko yéenekaay gi de la témoin xëy ñu xibara naa ñu ministère bi ñu dénk wàllum tàggat yaram ak ñi nga xam ne ñoo nekk ci fédération bi ñoom tim dañoo séddoo séddoo séddu ba doyale ci lu jëm ci wàllum prime yi séddale bukki la ko gars yi def yéenekaay gi di réew mi ko di jee nee na conseil des ministre bi nga xam ne ni ki démb amal nañu ko njiitu réew mi di président Macky Sall daan nay wax ministre bi ñu dénk wàllum tàggat yaram mu daal di xartànga tubayam ci football bi ci catégorie yëpp def si ay jéego yu mat sëkk te stade Léopold Sédar Senghor ak stade Demba Diop ñu daal di koy defaraat tax njiitu réew mi di président Macky Sall nee na football bi nañu aménager li nga xam ne mooy ay terrain ci quartier yi nay wax ne coupe bii nga xam ne gaynde yi andi nañu ko bëgg nañ mataar ba wërale ko quatorze régions yi nekk ci réew mi yëpp yéen a kaay gi de la sa nee na njiitu réew mi di président Macky Sall jamono ji nag dafa daal di bëgg xartànk tuba yama ci lu jëm ci football local bi ñu daal di koy suqali yéen a kaay gi di esat ñu koy fekk fa Aliou Cissé nee na mbooleem ñi nga xam ne nga xam ne ay jamono nekkoon na entraîneur bu Sénégal nee woon critique du dem na fenn yéenekaay gi di Rewmi Quotidien xëy duñu xibaar naan ñu ak ku bi nga xam ne Sénégal jël na ko loole nag ñi nga xam ne ñoo yëngatu ci lu jëm ci wàllum tourisme nee nañu mën naa jaay destination Sénégal yéenekaay gi di La Tribune nee na nag dina am ab délégation boo xam ne ay doomu réew Sénégal ñoo ci nekk fas yéene dem nag ca diwaanu Mali xool ana nan la ñuy lijjantee ba daan yi nga xam ne CEDEAO teg na ko Mali mu daal di koy teggi yéenekaay gi nee na Guy Marius Sagna ak Mamadou Diop Decroix maanaam dinañu dem ca diwaanu Mali yéenekaay gi di La Témoin xëy duñu xibaar naan ñu njiitul Pastef di Ousmane Sonko tey jii ñu koy installé ci mairie bu Ziguinchor waaye nag ñi nga xam ne ñooy responsable politique Pastef yi nekk Ziguinchor nee nañu nag installation bi passation de service bi du am xumbaay du am mbumbaay maanaam kenn du fa tëgg kenn du fa fecce ñoom responsable yi nee na c'est la première fois ab maire di dugg ci mairie bi àndaale programme boo xam ne bu leer nañ la yéen kaay gi di réew mi quotidien xëy di ñu xibaar naan ñu syndicat jàngalekat yi jamono ji mer nañu ba maara day taale ñoom nee nañu naam gaynde yi waaw yayoo nañ cinquante millions waaye tamit ñoom jàngalekat yi war nañu ñoom war nañ leen jox ñoom li nga xam ne nag moom la ñu yelloo la ñoom waa SAEMS ak waa su nee nañu nag engagement yi nga xam ne état bu Sénégal jëloon na ko loolee ñoom dañoo bëgg mu daal di koy respecté waaye nag lu jëm ci wàllum équité tolloole loolee war nañ koo bàyyi xel bu baax a baax yéen a kaay gi di Sud Quotidien xëy duñu xibaar naan ñu njiitu réew mi di président Macky Sall jamono ji bëggul kenn mer moo tax daal ne sàkku ci ni mu gën a gaawee ñu lijjanti jafe-jafe nga xam ne moo am ci njàng meeg njàngale mee yéen na njëg yi nga xam ne moo yokk ministère ñu dénk wàllum commerce mu ngi ci indi indi leerala yéen a kaay gi di libération xëy dañu xibaar naan ñu Fatima Dione Miss Sénégal bi nga xam ne moo doon wax ne dañu nañu ko yoon la xewee maanaam bis ba nga xam ne ba ñuy tabax a kaay gii di libération waaye nag nee na Fatima Dione moomu daal enquêteurs yi déglu nañ ko yoon yoon laaj nañ ko acte de naissance maanaam xale bi kayitu juddu xale bi acte de naissance moom Fatima Fatima Jonn nee na déclaré wu ko woon gars yi mujjee koo laaj nag certificat d'accouchement luy wane ne yow mi daal am nga dooma waaye nag moom Fatima Jonn ba mu demee ne mes na mentañ ba léegi gars yi ñoom yi woo ngi koy woo téléphone mënuñu ko jota léeg-léeg dafay sone ba dagg te du wuyu téléphone bi yéen kaay gi di Dakar Times nee na nag lu jëm ci wàllum tabax kasu bu sibi xutana am na scandale bu doy waar a doy waar boo xam ne ñoo ngi ciy tudd ministre maître Malick Sall mi nga xam ne moom lañ dénk wàllum justice yéen kaay gi nee na en tout cas xaalis la